bu la neexul yow doxal sa dox am na fi tactique matik matik yee booy dañu technique bu leen ñu technique waxal sa MC nee ko duñu dab booy ñii ma fi gis ñoom ñëpp duñu gat booy package sa put booy xoolali ma put booy bur bi yàlla moo ñu taal doo ko fay wis bay sama frère zal kaana la king boss mu ngi ñëw ni nga poona la seen MC yëpp

koron laa ci king bi boldu ci ran bi kilifa ci kër gi xorom ci cin bi koron laa ci king bi boldu ci ran bi kilifa ci kër gi xorom ci cin bi dalay fay déglul saan bi dalay fay dalay fay déglul saan bi dalay fay jaabal sa njàpp nga jàpp sa daaj jaabal sa njàpp nga jàpp sa daaj jàpp sa daaj ni nga jëlal sa temps suñu son bu la neexul nga képp sa gaa dañu dominer mass bi comme demi-temps ni nga xoolal sa MC bi comme débutant dañu marqué le pas da nga get suñu sound rek teggi sa tànk ni nga wàccal ma daanaat la ñu bare pour attaquer gembe li pare si foot sa em suñu rendi ko ni nga renforcer ramasser mercenaire taxul sa pool taxul nga génn sa pool booy njaabal sa njàpp jàpp sa daaj ni nga jëlal sa temps suñu son bu la neexul nga kepp sa gaat duñu seetaan sa MC muy def lu ko neex da nga xiif ñëw gàlla rek ni nga jox nga bi na lay fay sound bi tax sa gel di valider dan ko fight lépp nice rap ci afro trap bàyyil sa yaram yóbbu sa stress sa xol di neex yàlla buur bi musal ñu si caat ak baala fii ni fële doon fa musa xaare dëkk di la bees rawale lu bari kenn si yéen duñu musa daab bët seen bari sa bës ak succès yóbbu fureer baleen dereer am na ñuy bokk tourné ci même orbite déglul sound bi dalay fay. dalay déglul sound bi dalay fay. Oh. jàppal sa jàpp nga jàpp sa daaj. jàpp nga jàpp sa daaj. jàpp sa daaj ni nga jëlal sa temps suñu la neexul nga képp sa gaat. ok noonu lay demee muy waa Black Clean euh, Boy sound bi bi nga tudd euh, dalay fay ah Euh, léegi euh, li ma bëggoon a xam mooy durée bi sound bi euh, bi ngeen ko génnee ak léegi durée bi est ce que tamit bi ngeen ko génnee maanaam impact bi ngeen soxla woon ci ñi nga xam ne ñooy seen fans yi est ce que dal na est ce que dal na carrément tamit bon ci biir tamit maa ngi déggaat même lancé bi bi nga xam ni moom ngeen dóoroon ci premier bi maa ngi si dégg yéen a ngi si wax waa armo nan la fa demee yéen nan la fa demee nan la fa demee ak ñi bon ñi fi nekk ak nan la fa demee daal. non ñun classe waxuñu armo sax ba tey tudduñu armo de. ñoom ñëpp lañ fay kenn tàkkatul teel leen seen arme dañuy tàkkatul. non da nga ah. ni non da nga ni arme. waaw teel leen seen arme dañuy tàkkatul ñun ba tey teel leen seen arme dañuy tàkkatul ma ni ñoom ñëpp lañ fay kenn tàkkatul waaw léegi ñoom ñëpp lañ fay kon tàkkatul kon kan moo ko moom. non non xam nga boo ne arme rek man xam naa na la demee. <laughs> xam naa xam naa xam naa na la fa demee. non demeewu fa noonu sax yow fi ngay xalaatee ak ñun fi ñu ko bindee bokkuñu de. Hmm, bokkul waaw kon léegi kon léegi faram fàcceel ma léegi na leer. dañoo toog ñu ñu xalaat ni xaaral ñu jéem a évoluer boo dégloo bit bi boo xoolee li mën naa ne ngaay ñu ñëw fi njëkk a def génn dugg waaw innové ñëw yóbbu rab bi feneen léegi son bi boo ko dégloo début à la fin lépp dañ si bind. ok bind bu carré lañ si bind. mais man man li ma jaaxal li ma jaaxal lenn moo ma jaaxal parce que nee nga da nga ñëw ngeen innové. ngeen yóbbu rab bi feneen yóbbu rab bi feneen euh, ça veut maanaam si kono bi la kono bi maanaam au niveau de Mekke wala feneen ak feneen parce que euh, sans seen sans bi mu jotee génn ba léegi waaw dégguma leen fenn maanaam comme est-ce que yéen génn ngi rek station def promo wala comme si yeneen euh, maanaam rajo yi yeneen rajo yi est-ce que yéen a ngi génn est-ce que réellement yéen a ngi génn wala da ngeen a basé seulement au niveau de Mékhé parce que man loolu man je me pose des euh, mm-hmm. ci artistes yi nga xam ne ñu ngi fii au niveau de Mékhé très rarement ngay gis euh, ay artistes ñu génne euh, sound maanaam top sound bi def promo bi ci yeneen rajo yi est-ce que yéen yéen a ngi dox ci loolu est-ce que yéen a ngi dox ci loolu maanaam est-ce que yéen ngi rénové comme ni ngeen comme ni ngeen koy euh, waxee euh, souvent parce que majeure partie des rappeurs damay gis fi nii au niveau de Mekel lu si ëpp si la ñuy est ce que yéen a ngi génn di wut ay relation wala Black Clean Boys euh, ñu génn ñu ñu gis leen ñu génne album yeneen ak yeneen ak yeneen yeneen ah ok. waaw ñun moom loolu dëgg la parce que ñun dañ daan génne sound rek hmm, pour waa Ngaye mais génnewuñ ko woon pour feneen mais guddi ñu toll nii nag moom. dañ see boole ñaar yëpp dañ koo génne pour waa ngay génne ko tamit pour feneen rab bi instant bi rab ngaay instant bi dinañ dem ba koy dégg si kaw incha allah kon loolu bu neexee yàlla dinañ si kanam tuuti rek di nga si xam dara. ok noonu lay demee léegi dama nga may jox seen euh, troisième track bi euh, ñu dem si ñu xool ba xam noonu lay joxe ak jox ma. Ngaye FM Ngaye FM 93.5 FM. ma dugg ci ram ngay siisu wante xaar ma ñëw rek rey la fils dama jekk duma baale fii ku ma tekku ñu laale tegal ma bit bi ma tegu ci rabal ma rab ñi sànni sa bos black yi ñëw indi lu bees black yi ñëw indi lu bees déedéet du ma may dara deere ngay def doo am dara maa tey mën rab maa ni nga mënoo ci dara yow defagoo mënagoo tegagoo booy bu ma tegu ndax amoo talent booy tag tak laay def teelaaga fi ma jëm def rab tag tak ci kaw pëjëm may represent ngay represent may dox di dem ngay toog di fen sama dim booy mooy number one rab kaase booy lañ lay wan rab kaase booy lañ si béggati tappati tëbati riyali konsati dikkati raabati nee la Abdallah Boy leen di nekk si nekk judal le nekk si kaw kii leen rek si vite fait bien fait Abdal ma fi nekk dina clair I don't care may rab fi yow di salone ah. rab boy xëris dal noo du ba di copier may rab si kaw seen du def lu clair ga diga deg ma katune ma idler ma jadi don taxaw defar deh compare mandela Di solo sopp gën gu gue miskin su bu ñew diga ma mandela bcp wax moy pare doñu pare. Kompasa real ñu nak fegi duñu Yeah, ye nyu jeko jekko duñu balé ñongi ñew nel bisi bi wax ji mooy bari dooñu baare comme Barça Real ñun nag fegi duñu laale ok hey ñun bu ñu jekkoo duñu baale ñoo ngi ñëw sa gaay nañu baale man rab ngay jaay ni ko nan si dem tey rek ngay xam ni yow doo si nekk fu ko sekk man di yow doo si gën sama jàpp bu ko tëkkaleeg bidéew bi li may jàpp dafa kay comme bidéew bi yéen ni ko yaa nee si géew bi sama yoon dafa leer comme solaire bi bu dee man di def tàttumaay solaire bi li may rab dafa neex fiis doxoon dem gaal seen bi la ma dëkk du ma dem ku ma nar a tee fiis damay doxoon ah may bal ak géej gi doom bal si géej gi même jàpp ko ah, géej gi moo nekk si géej gi lu mu metti metti ñuy job ñun duñu daw sama tim amul ku tiit dee ko woowee king fépp king partout nem bi dafay gën di laaw xësi abdelma niiga léegi kaana yee booy di ka tiina da ngay jaay man ndab ma niiga mënuloo tey rek ngay dee jàpp sa ràpp di ko juddal comme Balla Gaye Modou Lo comme Balla Gaye Modou Lo tata li ngi rap li ngi ci yëg moo laaj ci bët jox ñu cër sa xel comme ça papa duñu bopp bi da nga jàpp gen a tuf ci nag sa tat bi ci xaj du te bisi bi ji mooy bari doo ñu baare comme Barça Real ñun nag feegi du ñu laale eh ñun bu ñu jekkoo du ñu baale ñoo ngi ñëw nel sa gaay nañu paare bisi bi wax ji mooy bari doo ñu baare comme Barça Real nag feegi du ñu laale eh ñun bu ñu jekkoo du ñu baale ñoo ngi ñëw nel sa gaay nañu paare ok noonu lay demee wuy waa Black Clean euh, Boys ah muy euh, ñetteelu track ah bi nga xam ni déglu nañ ko mais ba tey day dañuy duggante. Mm-hmm. boo xoolee ñetti sound ni dañuy duggante ba léegi bon gisaguma gisaguma maanaam benn sound bu nga xam ni thématique la thématique comme ok ñu jël kooku nekk si ligne bi allo. allo. allo naa def. maa ngi si. sinon lépp bon baax ñu tur bi. ok bon euh, yaa ngi live en direct euh, ci couleur euh, maa ngi ni jàkkaarloog El Hadj tur bi. Daara eh, ok mën nga wax moom. naka moom. maa jàmm. oui ça va. ça va bëgg nga xam ne yow nga jàpp rek. incha allah. parce xale nga boo xamante daal faaw nit ñi jàppale la. li ñuy def moom dafa naaj. merci merci waaw kay dañoo ko mën a jàppale. bilaay.